dem na ci bu xale général bi ne euh, kuy voté na nga dem voté ji feneen maanaam bureau de vote yi na génn. Mhm. loolu itam manifestation yi ak coow Ousmane Sonko Adji Sarr indi na ko. noo gisee loolu yow. lu garaaw la parce que dafa mel dafa am projet boo xam ni liñ ci jublu rek mooy déstabiliser réew mi déstabiliser réew mi bokk parce que nit ñi mënoon def seen politique te du àgg Touba quand nit ñi def nañ politique depuis l'indépendance te dugguñu ci foyer religieux yi pourquoi Touba tu vois c'est un problème. dafa am repère yoo xam daan réew il faut mu am ay tabou il faut mu am yoo xam ni kenn du ko laal kenn du ko wax kenn c'est important parce que loolu mooy kennu réew mi moo téye réew mi li ci des nag mooy xalif bi nee na kenn dootul voté Touba loolu mooy lañ Touba daanaka mooy deuxième foyer directeur bi ëpp doole ci Sénégal. Mmh. ñu ngi wax trois cent mille presque électeurs. voilà. léegi loolu boo koy boo ko bëggee déployer tey est-ce que élection redéployer est-ce dina mën a am 2019 man loolu mooy sama problème parce que soo nalee réorganiser waat corps électoral bi noonu réaffecté waat électeurs yi redéployer ko jàppuma ni élection dina mën a am février deux mille deux mille vingt-quatre mais li nga wax ni am na ñu koy junjudee lu jëm ci par exemple. non euh, non li ma la xëy report élection présidentielle. la bu fekkee du jóge ci loolu. dama ne bu ko ni da nga war a redéployer. waaw corps électoral lu Touba. waaw réfectoire yëpp créer des de vote. Mhm. yóbbu citoyen yëpp. tu comprends ba pare sensibiliser leen jox leen defal leen de nouvelles cartes pour nouveau bureau de vote yi. loolu élection du mën a am en deux mille vingt deux mille vingt quatre. mais du ne jàppaloo mu nekk argument ci report bi ñu bëri di di di ruumandaan. ah xaw ma argument la de mais encore concrètement laa wax de su fekkee ni lii xalis bi wax dañ ko nar a def. parce que nag attention man jàpp ma ni xanaa di nga mën a def élection exclure waa Touba. man loolu jàpp ma ko xanaa. mais loolu su amee kan moo ciy gagné. opposition pouvoir quel que soit ce qui gagne. la démocratie démocratie moom moo mënta a souffrir loolu. maanaam deuxième mi ngi noog tey. pour man xaaral ma expliqué rek mi ngi noog tey ci quelques secondes rek. waaw waaw waaw moom laay wax moom laay wax. parce que man conséquence bi ma gis mooy xaalis bi lii mu wax ni li muy junj li muy jur mooy reporter élection yi deux mille deux mille vingt quatre. par force léegi benn ma ni parce que li man mënuma gëm ni nit mën nga def élection dans un pays exclure ñaareelu barab bi nga xam ni moo ëpp ay votants ci réew ma man jàpp ma ne loolu. d'accord merci Omar ci décision bi ak sécurité bi nga xam ni tey. xam nga boo demee par exemple Centrafrique. abonné leen si suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk yu wér te wóor aju ci réew mi ak bitim réew.